da ko bëggoon uhibbuka hubba dati la ko waxoon uhibbuka ya shahr siyaami bila ghashin mooy bëggu sel bu dara raxut bu benn intérêt la rutoon moom la bëggoon weer wi loolu tax na weer wi nun sunu weer la nun murit yëpp ndax Sëñ mom la ñuy dàkk moom lañu wër moom lañu bëgg bëgg giñ ko bëgg nag mooy tax lépp lu mu bëggoon nu bëgg ko foofu lañ duggee ci waxtaan wi mooy bokk na ci li mu gën a fëse mooy diggam ak sunu borom tabaraka wa taala danoon ko bëgg yàlla yàlla keese keese la mas di dàkk suñ tubaab mooy jëmm joo xam ni léppam sunu borom tabaraka wa taala moo koy àtte moom wax na sax ni ku muy bëgg yàllaay tax mu bëgg la ku muy noonu itam yàllaay tax mu noonu la noo toll ci yàlla rek noonu la la suñ tubaab di jàppe حبي في الله وبغضي فيه لي أوصلا ما كنت أصطفيه وخنا فنا به أعادي وبه أوالي كومي نونو يلا تخمو نونو لا موي كو يلا نونو نونو نالا كو يلا بغير جاب لا من جاب نالا لولو مودون سيني توبا ليبم دوكو جيرون جوخ جوخ سيني توبا ييتيم جين لا موي صارفا همتي لربي تعالى مو ييتيم موي يلا سبحانه وتعالى wax na sax feneen ne ribtu anil akwaani bil mukawwini maanaam dama fàddu jëflante tuma ak monde bi ngeen di nekk nii yàlla rek lay jëflanteel ribtu anil akwaani bil mukawwini kon bu nee ba jamono joo xam ne dañuy jël temub ndax sëñ Tuubaa mbirum tawxiid di ko waxtaan loolu mooy li gën a naqari ci xol mooy nun murid yi dañoo dese lu bare bare bare sëñ Tuubaa bu ñu dem bay warante digganteem ak tawxiid ak yu demoon loolu manam delu ginnaaw gu reey lay doon ci ak ci ak taalibe ak murid ci to léppam yalla la da joxe ben misal Cheikh mohammed al Basir ci minal baqil qadim dafa wax ben benn attekatu tubaab bu fa nekkoon bu ñu wax alam ber ba tubaab bi non noonu lañ ko bind ci arab alam ber acte kat bi dafa amone ben gan bu jugge France bok ci parlement ba bi gan gi wara ñew senegal diko di mu ñëw ci sëriñ bi di sakku ci moom dimbal ne ko dama bëgg nga dimbalee ma lu xaw a jege ñetti junni wala ñent ci ngurdu ci jamono yooyee ne ko nag soo ma ci dimbalee sama gan gi ko am lu man la foofee ci France su demee dañ la jàppale ba ñu jàppale la yawit ndax sëñ bi xam ngeen ci résidence surveillée la nekkoon foofu ci Diourbel bëggoon naa dem Touba mësuñu ko may mu dem Touba atekat boobu hakim boobu gouverneur bi diko xamal ne ko boma jappale ci xaalis bi ni dina fexe bañ waye falal la nek gi nga nek fi njariñ Cheikh Mouhamed Basir nee seigne touba da ko wax ne ko ayyuha rajulu utlub ma tatlub ya man fi nafsi hajatun yuridu qadaaha tuan bima amkan wala tabhas an hajati fa innaha qudiyat wala xaajata li ba'daha فإني ما أحببت شيئا غير الله تبارك وتعالى من يوم عقلت إلى موقفي هذا وقد حصلت عليه كما أحب وأختار فهو سبحانه معي حيث كنت وغيره ساقط لا علم لي به ولا إرادة ما يواجيني دي أملوي بقك يتي سيتي جي وقو ما دم ليلة جلو ما من واي بول ما خمان لي ما بقك أك يتي بو نحمن سما يتي جان لتي saafarawu na ndax man jenn yitte laa ma saa muy yàlla subhanahu wa taala laa mas di bëgg te fi mu ne nii am naa ko ba mu doy sëkk ndax waxtu wu ne mi ngi ànd ak man te lu dul moom rot na fi sama kanam xooluma ko Sëñ Tuubaa noonu la meloon xam ngeen ni Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana wax na bi waa Kajoor gépp dajee sëñ Mamadou Anta Sali jóge fi ñu bëggoon koo fal mu nekk ci wetu buuru Kajoor di mansib bu am doole ci jamono jooje keroog bañ waxee wax ak moom ba àggal ne ko dañu laa bëgg ànd ay yóbbu la ca buur ba lan la leen tontu mooy amal ari amal amiru fa ana laa adhabu illa al umara wala arghabu fi duniyaahi fi duniyaahu wala atlubul karamata illa min allahi rabbil arbaab mooy man fa suma yéenee dem ci buurub àdduna te itam seen adduna soosee soxlawuma ko bëgguma ko te teraanga ci kenn rekk laa koy sàkkoo muy sunu borom bi nga xam ne mooy buuru buur yépp ci la def xasidaam googee xaalu li yar kan li abwaabi salaatini tax jawaïsa tuxni kulla ma xiini fa qultu xasbiya rabbi maanaam yàlla moo doon yitteem moom Serigne Touba gis ngeen ci biir mbindam dadaa ñaan yàlla def ko muy jaamub yàlla yàlla jàppe ko abdullahi wa xadimu rasuli loolu ñaan na ko ci bër bi bare bare wax na ne daawtu rabbi wa duaa ya yujib kaw ni ya abdullahi xaadim alxabib loolu itam bëgg gi bëgg ñëpp xam ne moom yàlla kese la leneen moomu ko yàlla gis nañ ne seeraloo na lu bare bare bare seeraloo na ko mbindeef yi seeraloo sunu borom la ko ñëkk واخنا سونو بروم نك واشهد لي اليوم بكوني عبدك خديمه عند جميع جندك واي سيرال نكو مند في ادنا سيب ني بغنا نيب سيرال ماني مان جامو يالا كيسلا بودون جامو يالا لنين مومو سيني تو موي جيم جو خامي مستال لوخو كوما يالا يدي لي مخنين كريم نافع سمد لا لدراهم تاتي من سليتني gis nga wax na ne di séralo minde nekk gim nekk di jaamu bi yàlla wax ne yaa jumlatal xalq ishhadu li yawma fiihi yaxuusu lmujrimuuna lawma bi kawniya daareeni abdallahi xadima abdihi ibni abdillahi muhiba kulli muslimin wa muslima mubgida kulli mujrimin wa mujrima yéen bindeef yépp maa ngi ñaan bis bu ñu demee bis penc yowmal qiyaam na ngeen ma seereel foofee ne man kat kenn laa mas dib jaamam muy yàlla doon liggéeyal yonte bi sallallahu alayhi boole ci nag bëgg jullit ñëpp ñu góor ñeeg ñu jigéen ñi bañ mbooleem lu di kéefar ku nangu lu di yàlla subhaanahu wa loolu nasaraan yi ko jàppoon doon ko ci tooñ sax seerloo na leen ko gis nga li wax ne inni uxaatibu nasaara turra fi ardihim li maliki muttarra te yaqanu bi annani lillahi abdun xadimun li rasulillahi wa annani ma ziltu daa tabarru'i min kulli man bil kufri du tajarru'i ولتشهدوا لي بقولي مع يوما جميع العالمين جمع الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون راحلا او أوقاتنا والمصطفى وسيلتي إليه سلى بتسليم على عليه مين نصراني ما وقت دين تسين سوسي أنك لور مضطرا موي إرترار تلا نكون بام فنك مسل مسل أم بين درم بوخم نسرين توا دارن كوكو جفو ولدانو كفديكن koor gii nga xam ne moom la kooree maa yomba te Cheikh Mouhamed Bassir wax ko Cheikh Mouhamed Lamine Diop Dagana wax ko koor ga woor na ko ba jeex te dara duggut ci gémmiñam wisaal la doon def mooy bu dog jotee dana dem ci xobi garab yi fexe ba nal ko ba dara dugg ci mu wóor ko ne dog koor gi dog na rek mu wéyati ba suba ba koor gi jeex ba koor ga jeexee gis nga la mu wax xasida gam ca def la mu wax suñu borom ne ko man woor naa woor wépp weer wépp woor naa ko sangu naa tey ñëw di julli fii jullik ayib ànduma kenn man rekk la muurum koor it yéene naa ko laa dogal awma lu ma ko joxe te su ma ko amoon it fi ne awma kenn ko ma ko mën a jox bi mooy def naa li ma man lépp te loolu yàlla rek moo taxoon mu di ko def xamal na nasaraan ne man dañ naa ci mboolem ku gëmut yàlla siquma moom dara yàlla kese mooy sama borom ci lu nëbb ak ci lu feñ lolu yëmut ci nit ñi waaye dem na ba géejug yom ba ñu gis mu di ko séralo li yashhad bi kawni abda man yaghfiru dhanba wa kawni mustafa ni ma yom ba wal yashhad bi anni la udahiru mushrikan khalilan habiban lil ladhi للذي كرم الجنب أيا بحر واحد لا تسلس فربنا تعالى فربنا تعالى عن التثليث أكرم به ربا فكن ذا اضطراب مزبدا من مخافة من الله واشهد أنني عبده صبا maanaam nekk gi mu nekk di jaamu yàlla ñor gi mu ko ñor ku xam dara ci Sëñ Tuubaa xam nga gis nga Sëñ Cheikh Sëñ Cheikh Souaybou Sëñ Abou Madiana wax na fi léegi wax ju am solo Sëñ Tuubaa ci mujjam ku masaa ñëw da lay wax ne foo jullee da nga jàng fukki lixlaas ak ñaar tifli ko loolu dana maye ngëm te ngëm mooy li gën a jafe ci jamono jiinu ne moo wax ne alal maqaamaati iskaanu tawxiidi fil bu wax na ko ci bërëb yu bare bare bare loolu ba tax na Sëriñ Tuubaa mën nañ ne lii symbolisé tawxiid ci kaw suuf ubudiyatullahi subhanahu wa taala ci kaw suuf amul lu ci gën a rëy Sëriñ Tuubaa dem na ba moom yàlla ci boppam moo jàppe muy abdullahi wa xadimu rasuli wax na ko sammaytani qataan bi abdika alxadim te loolu it moo doon mbégteem xolam li mu wax al akramu tafrixan yadun yaduum bi annani xillun wa xibbun wa xadim jaxaltani abdal ilahi wa xadim rasulika alladi siyaadu tadum wax na ko ci bërëb yu bare bare bare wane ne def gi ko yàlla def muy jaamub yàlla buy liggéeyal yoon dem sallallahu alayhi wasallam moo doon mbégteem loolu sax nu ngu ku ci njort wala ngay demaleeg fekkale wala nga koy sikk sàkk man danna anni xayru abdillahi wa xayru xaadimi nabi fa saahi ku jot ne man doon naa lenn lu weesu di jaamub yàlla buy liggéeyal yonte bi sallallahu alayhi wasallam xamal ne yaa ngi ci njuumte man jaamub yàlla laa buy liggéeyal yonte bi sallallahu alayhi wasallam àgg na sax ci wax ne loolu mooy sama daraja darajati kaw ni ya abdallahi xadima abdihi ibn abdillahi bu ko defee itam nekk di jaamu yàlla loolu dara gënu ko rëy nun ñii ci sun ci jamono xam ne ñëpp yàllaa leen moom am na ci ñoo xam ni jaami bànneex lañ am na ñoo xam ne jaami lekk lañ ak naan seen yitte jëpp mooy lekk ak naan am na ñoo xam ne jaami soxna lañ soxna yi am na soxna yoo xam ne jaami ay góor lañ nekk di jaamu yàlla bu sell loolu dara gënu ko jafe nga xam ne yàlla kese moo la moom loolu gis nañ ci alxuraan sunu boroom du ku ne la koy jox garat bobu te kum ko joxe dana ca bolé xeeti xéewal go xam ne danga xam ku agul ci martaba ubudiyya bobu do ca manag ci misal ba waxe summa dana fatadalla fa kana qaba qawsayni aw adnaa fa awha ila abdihi ma awha ila abdihi ba waxe waxee jaamam ba foofu bi nga ko gis nga awha ila abdihi ma awha ba waxe abdan min ibadina atinahu rahmatan min indina wa allamnaahu min ladunna ilman manam kum tudde abduhu rek subhaana alladi asra bi abdihi laylan min almasjid alxaram ila almasjid al aqsa muy dem rek lolou kon nun ñep jotna nu defar ko suñu xel xam gëm yàlla moy sart bi jëkk ci murid seigne touba da xam ne li seigne Abo wax na ko abu awwalu wajibin al almuridi tahsilu zadihi min at tawhid awwalu waajib li jëkk war ci yow bala ngaa def dara mooy lan nga fexe ba am yóbbal bu doy ci gëm yàlla nga gëm ne yàlla kenn la Sëñ Tuubaa ba mu nuy jàngal ci maj ba lan mooy gëm yàlla mooy huwa al jasmu bi wujudillah wa ma wa abdun lahu na nga dogo ci sa gëm bu wér ne yàlla kese mooy yàlla te am na bu wérit te ku may moom moo la moom loolu la suñ di wax ne mooy ngëm ku ko defagul nag am nga jafe-jafe bu rëy fi ne suñ tuwa wax na ko borom xam yep yëpp senen nañ ci ijmaa la am mooy koo xam ni amuloo ngëm gu dëgër ci sa kenn mënu laa ràmbu ëllëg yowmal xiyaam doo fa mucc daa am ñu bari suñu classe gi dañu nekk ci leen neex jàpp ne boo demee boo duggee ci pax mi gis sëñ bi mën ngaa dugg ci pax mi sëñ am fa waxtu yu bari doo gis lu bokk ci sëñ tuwa parce que yow gëmul woon yàlla Sëñ Tuubaa fowut fooluwut te léppam it da ko bind mu leer li mu bëgg nun nu jaar fa ku bëgg doon murid sadiq faw nga gëstu mbirum Sëñ Tuubaa moom ak li mu bëgg ci yow waxi kese def sa xel yoo xam ni maanaam ci sa xel mi rek la ne génn ko loolu mënulaa tax mucc donte nag nun noo ngi yaakaar yërmaande ñépp te loolu lañ bëggal ñépp itam waaye mucc yombut kon Sëriñ Tuubaa foofu la nekkoon agna ci jàmbat musuko def mindef dafa wax ne inni ila nafi'il wahaabi muftaqir wa lam akun li siwa al mughni bi muftaqir a astaki durra lil makhluq mujtadiyan min baadi kawniya bil faqr moy jàmbat mom yàlla kesse la ko dan def bo gisee xasidaam yu bari yepit yàlla la ci tag dara wax ni man munuma noppi ci tag yàlla يا الله يا حي الذي ليس يموت ما لي عن الثناء عليك من سكوت ما نوبي تي تاغ يالا اك واخو مباخام منوما تي نوبي ku ne xam ne tagg yonente bi tam mooy ci tagg yàlla ndax yonente bi lu mu am yàllaa ko def ci moom kon foofu la sëñ bi nekkoon moo tax tawxid lu mat a yitte wala sëñ tubaa moo wax ne wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaaqi maanaam xam-xam bi gën mooy nan la ñuy gëm yàlla nga njëkk ko xam am na feneen fu wax ci jës bëtu sixaar wax yaakaar naa wa baadu fa tawxidu rasul maali mooy tawxid mooy capital bi nga xam ne loo ci am rek noonu la sa capital toll lu néew néew nag boo ko amee ci gëm yàlla ak wéetal ko ak xam ne yàlla rek a yàlla faw nga mucc moom ndax say jëf boo ko matewutit nga taq taq taqaay bu rëy itam ci àdduna faw Sëñ Tuubaa ci moom xettali la wala nituk Sëñ Tuubaa xettali la wala waaju baax wala sa xarit yi nga àndal sax mën nañ laa rambu ëllëg rambu lu am la lu wér la waaye kañuy rambu mooy koo xam ni dara ci ngëm a ngi ci gis nga ne xadis boobu nga xam ne mooy dikk ci xadis safaa yonente bi bu sujjootee fa kanam suñu borom ba sujjoot da koy wax demal nga jël ca jullit ña ña gëm waaye fa muy mujjee moom mooy koo xam ne fii xal bi xabbatin min xardalin lu toll ci misal rek bu nekkee ci xolam ci ngëm genn leen ko ngeen yóbbu àjjana su fekkee dara dara dara ci ngëm nak nekkul sa xol mënuloo lo muccu motax loolu dañ war di wax ni waxante deug manam sunu classe gi di wax ni ñoo ñi gëna nekk ci danse Sëñ Tuubaa commerce la bu dox amna lo xamni boko xon fi ko bass ñu daanu jox la xaaliss bu dul jeex nga yobbu sa kër di xewlu way boy dugg sawara parce que da ngay dunde Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa moo ne sarrul wala alladina yaakuluuna bi diini am waa am waalan nu mu waxee mooy ñi yées ci nit ñi mooy ñi nga xam ne dañuy yaaxuduuna bi diini am waalan mooy ñi yées ci nit ñi mooy ñi nga xam ne dañuy dunde diine diine mooy Sëriñ Tuubaa ndax diine la jëmmal moom la doon tax dox doxal Sëriñ Tuubaa wax ne laakin na man tawxiidu xayru duxri lii gën ci li ngay denc pour yóbbaale ko ëllëg yow ma xeyam mooy tawxiid wéetal yàlla soo deful genn jaamu yàlla te sa xol fees dell ak gëm yàlla bu wér te loolu jotuwut ak dara gëm gi ngay gëm yonante bi ak cër bi nga koy jox bu jotuwut ak dara cër bi nga jox sëñ Tuubaa jotuwuñ dara yooyu sëñ Tuubaa lépp loo xalaat ci mbaax ak daraja ju kawe bu la neex nga askan ko ko wansub ila qadrihi yi sita min sharafin wansub ila daatihi ma chita min idami ne ko waa ji waxoon ci Albuseeri lu ne lu ne lu di mbaax rek yow ci li nga xalaat sa xel Sëñ Tuubaa weesu na foofu waaye nag yàlla moom na des di yàlla te ngeen bàyyi ko fa mu ne te xam ne yàlla moom li mu gën a bañ mooy koo xam ni yaa place boobee na ma yàlla la muy nekk di boroom lépp ku ci dugal leen lu ca bokkul loolu lay bañ mooy shirk yàlla yàlla mos ci loolu mooy bokkaale yàlla. bu ko dee sëñ Tuubaa gis na sëñ bo wax na ñaar fukki téere ak juróom-ñett yoo xam ne sëñ bind ko ci tawxiid yemut ci loolu moom ci moom wax na ne zintu li dil arsi alazimi wasna wa kaana li bima kafaana alxusna zintu lahu abkaara tawxiidi nafat li gayri alida wa kulliya shafat kon duma guddal bu baax a baax wax ji sëñ boo wax na lépp tawxiid lu am solo la ci ak murit la bokk sëñ Tuubaa da wax ne bala ngay sóobu di wutub sëriñ fexeel ba am yóbbal bu doy ci tawxiid boo noppee nga fexe ba xam ni ñuy julleeg ni ñuy woore yooyu noonu boo noppee nag wa baaduhu yasluku inraamul wusul ala yaday mukammilin yaqfu rasul kooku moo doon sëriñ Tuubaa daa wax ne lam yanxu qalbiya gayru tawxiidil malik wa niyatul xayri wa faaraqtul muluk sama xol lu dul wéetal yàlla dugg ci ak yéene ñëpp aw yow bur yëpp it ma tekkali teqalikook ñom jàpp ne ben bur rek mo yàlla ndax da wax ne dulliya lil fardi alladhi lam yalidi wa laysa mawludan ataaba khaladi ben bur rek lay torox lol moy sun borom tawara ko taala kon lol rek mo don waxtan wi ma ngi jégalu bu baax mel na ne sëñ bi dafa wax lépp te baywut danaka ben poñ bo xamni man nañ sëñ Tuubaa bu dee ci tawxiid mën nañoo gis ne itam moo doon jaaseem ji muy xeex xeexe boo gisee xasida gi mu def yaa jumlatan wax na ca ne sayfi alladi yafri tula man tallatu tawxiduhu fa huwa al ilahu al waaxidu yal na yàlla taas ci barkeem te defal nu tawféex yi dégg ak topp te defal nu nu nekk ngeen ji taalibe ngeen ji murit ndax nu mën a jariñu Sëñ Tuubaa wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu